yi jërë ngeen jëf euh, ci ànd bi ngeen di ànd ak programme Prestige TV lëkkaloo ci prestigethies.com ñuy rafetlu seen kóolute ci seen télévision régionale xibaar yi ci bésub talaata gi yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weerub octobre ci atum 2020 la ca gën a fës nag nekk waajtaay bi ñuy waaj mawludu nabi ba tax na nag ki nga xam ne moy euh, ministre de la santé et de l'action sociale di Abdoulaye Diouf Sarr amalon nak tukki nemmeeku ci Sénégal euh, démb nak demone Njaasaan Ceneba ak kër Maam Alaaji euh, dinañ ci delluwaat ci xibaar yi ki nga xamné nak Abdoulaye Ning di doomu Ceneba au conseiller territorial mom ci Daldina bopam nak dal dina Euh, ngir daal bokk ci ñiy jàppale ne ba ci euh, téeméer ak ñeent fekkalub euh, gàmm boo xam ne ñu ngi koy amal foofee ca dëkkub maam Amary Ndack Seck waaye ñu gis ne nag jamono yi la jëm nag ci wàllub euh, cas importé yi ci feebar bi di coronavirus mu ngi wéy di bari ci mim réew di Sénégal waaye nag la jëm nag ci wàllub takk masque yi gis nañ ne daal askan bi ñu ngi koy soofantal loole nag indi tiitaange ci waa kër docteur euh, bés yi weesu nag soxna Aminata Mbaye defoon na nag micro trottoir Euh, dinañ ci dellu ci biir xibaar yi mbokk yi xibaar yi teel wàllu bitim réew ak tàggat yaram moo fas yéene ndarkeppe xabaar yi ci seen télévision régionale du prestige ñooy rafetlu seen kóolute su ne saa ñu ñëw ci wasaag yi mbokk yi jërë ngeen jëf rawatina yéen ñi xam nañuy seytaan bitim rew ci réseau bi ñuy wax IPTV am nak ñu tamu suñu plateforme yi ci page Facebook live site d'information www.prestige.com ak page YouTube bu Prestige dore xibaar nak boutis. ak xibaar bu ta dal nak ci taskatu xabaar yi nekk ci Thiès ab kenn ci bokk ci di wacc Jano Tissera ñu xam ko lol la jëm ci walup Euh, photographie di photol nag li jëm nag ci wàllu presse moom nag ginnaaw bu mu amoon nag feebar daal dina wàcc liggéey euh, ca hôpital Amadou saxiir Ndiéguène bu Thiès te nag la ko def mu nekk koo xam ne nag ku baax la woon ñu yàq ànd ak moom cay ay reportage yàgg nag bokk ak moom lool jeetaay moom nag daal dina dëddu àdduna tey mu nekk nag tiis boo xam ne dal na nag ci mboolem seen euh, taskatu xabaar yi nekk ci Thiès rawatina sax askanu euh, njabo euh, mbokk rawatina nag ñi dëkkee ci Thiès mu nekk nag xibaar bu doy waar tey nag la ko def ci bésub talaata gi ba tax na nag ci sama baat ki nga xam ne mooy président directeur général di groupe bu groupe Prestige di Pape Doumbouya ñun ñëpp ci kàddum nag ñu ngi koy jaal euh, njabootam di ko jaal nag waaye taskatu xabaar yi nekk Thiès waaye nag di ko jaal waa Thiès yépp àdduna ak eh, ci feebar bi di coronavirus mbas mi xam ne bi mu duggee ci mim réew boobaak léegi mu ngi tolloog ci juróom-ñaari weer waaye it bés bu yàlla sàkk waa kër docteur di jëf rek eh, ana ci anam yi xam ne moom la ñu bëgg a tëral rek ngir jële feebar boobee ci mim réew di Sénégal ba tax na nag ñoom ci seen wàllu bopp xamle nañ daal lu tolloog 453 test daal jot nañ ko def ngir xool nit ñooñee Euh, test yooyu nak jëmmal né lu tolloo ko juróom benn nit dal dinañu am fièvre bi di coronavirus euh, benn cas importé dé am nañ ko ca aéroport international Blaise Diagne euh, ki nga xamné nak mo bëral biral li ni mel moy El Mamadou Ndiaye moy directeur de la prévention nekk fofé ca ministère de la santé et de l'action sociale ñu teewlu ma jotali len communiquer bi bayé ko ministère de la santé et de l'action sociale tey Talata, ñaar Fukifan, niar. ak juróom-ñaar octobre ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a fouk ci ak Fuk ak test yi ñu def positif ci Ben Yoyu, nyoti contact dañoo jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn cas importé bi nga xam ne bitim réew la jóge te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne de Diass am nañ ci ñaari cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji te xamuñ fu ñu ko jëlee wàll ki leen ko wàll ñooñu nag ñu ngi dëkkee wokaam témèr ak ñaar fukk ak benn si malade yi nga xam ne ñu leen toppoon ci kër yi wala ñu ngi entré woon hôpital wér nañu ba bu si yàlla àndee dinañ leen yeewi tey juróom-ñaari malade ñu nga réanimation benn malade ñàkkul bakkana ba su démb altine ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan El Hadj Mamadou Ndiaye mbokk yi xuus nag ba léegi ci xibaar yi jugee na sax la jëm nag ci wàllu wàllub waajtaayub Euh, mawludum nabi ñu ngi ko fas yéene am rek ci euh, bésu altine gii di ñëw ba tax na nag kërub diine yi xam ne dañuy meg màggal bés boobee euh, ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan rek ngir daal di jublu ci mbir mi ñu gis ne nag ren ji gàmmu gi de dafa tombeek mbas bu ñuy wax coronavirus ba tax na nag këru diine yëpp ñu ngi fagaru daal ngir bokk ñiy daan feebar boobee Euh, bés yi weesu nag commité régional de développement di CRD amoon ñu jagleloon nag euh, njabootu Baye yi nekk ci Thiès ngir euh, seen gàmmu ki ñu fa yéene amal ba tax na nag gouverneur de la région di Mouhamadou Moustapha Ndaw jiit jag jiite woon ab CRD rek ngir daal ñu taxawu leen taxawu leen ca la jëm nag ci waajtaayub gàmmu googee Eh, ginaaw nak bu ñu amé waxtaan bo bu nopi nak ki nga xamné moy serigne cheikh fall mi xamné mo fa téwalon eh, khalifa général des bay fall aduna ci anayan anam lañu bëgg fa magalé eh, gamu gi ci at gi ñu téw dé mom lu waralon moy wajal gamu gi nu doon ko amal nak ci ndigalu serigne bi serigne cheikh jëmbu mi nga xamné moy khalifa général bay fall njabote kër cheikh ibrahim gep nañ ko daan baaxoo defee nag bu jotee ndigal ci xalif général di murit te loolu moo am ren ji wax sant ko ni ko nam daan def na ko def na woote te waaj gàmmu si fii ci Thiès loolu ba mu amee nag lan jokkoo ak euh, le gouverneur xamal ko ni ko sëñ bi dina ñëw moom itam mu daal di préparé fi saasa xam la mu daan def mu mu waajal ko te mooy woote njabootu sëñ bi ñëw àndaale li nga xam ñoom lañu bëgg Euh, ñu defal ko sëñ bi ak njabootu sëñ bi ngir gàmm gi aw yoon loolu nag ci lañ nekk ci lañ ci lañ nekkoon léegi mu CRD. kën ne ci de moom nii nga gis ma def ko te nun ñëpp ñu def ko mooy takk ay masque te te yi nga xam ne moom la ñiy saytu mbirum euh, wérgu yaram ak ak bi nañu gisee ne ñu defee noonu rek ñu defee noonu loolu moom lañ def fee ca Touba. Ah, am ci ndigal ci sëriñ ba gis ngeen ko ga màgg ga màggal gi wees nag jàmm te mel na ni itam lan doon yaakaar lu ci bari amul amul sax laay wax kon nag yàlla loolu itam moom lañu bëgg a amalaat fi rek ba yàlla dimbali nu ba nu mën a dajewaat gàmmo ah, te ci jàmm ak salaam. Mm-hmm. waaw jafe-jafe ñi moom at mu jot day am waaye. Euh, xam naa euh, des mënta euh, def nit ki li mu bëgg lépp waru ko mën a def rek maanaam léegi-léeg mu am yoo xam ni day day day ay rëq-rëq lay doon waaye li nu gisan daaw ci ay jafe-jafe souligné nañ ko wax nañ ko ak kilifa yi am nañ yaakaar ni itam am nañu yéene defar ko boobu incha allah duñ ko gis. des ci wàllu woowee ba léegi nag gis ngeen ne wax naa ko ci benn gàmmu gi mu ngi waaj ñëw. Eh, ñu gis ne nag eh, waa kër docteur loolee daal yittal na leen lool ndax eh, dajaloo dafay am te su dajaloo amee rek il faut ñu daal di def seen kemtlaay katan ba daal di tek tek ay barrières rek ngir fexe daal ba feebar bi di coronavirus bañ a law ca besub gàmmu ca jamono gàmmu googee ba tax na nag ki nga xam ne ministre de la santé de l' sociale di abdoulaye diouf sahar xam ni mel ba taxoon nag muy wër ci groupe dina yi nekk ci biir réew di sénégal démb nag jotoon dem njaasaan dem ceneba waaye nag jeexaleem tournée bi fii ci kër moom alaaji moom de la ko tax a jóg mooy rek jàppale këroupe dina yooyee ba la xam ne mooy coronavirus ba fa law ci réew ci jamono gam googee abdullah jufsar ginaaw bu mu amalee tournée bi noppi nag àdduna ci micro ahmadou bambali ak moussa mbaye dañoo xëy subatel jëkk kaolak bu ñu demee kaolak rencontre nañ xalif général si medina baye ba ñu fa jógee ñu dem cenaba actuellement ñu ngi njaasaan ñu fi jógee dañuy dem fële thiès gis famine jégen li waral tournée boobu nag mooy xool est ce que si contexte pandémie bi ñu nekk ndax gàmm bi jël nañ disposition yépp pour me préparer dans les meilleures conditions le virus bi du mën a law loolu nag waxtaane nañ ko kilifa diine yi euh, sensibiliser nañ len fekk nañ d'ailleurs ñom ñu jël disposition yépp ñu ngi sante euh, yalla euh, déjà parce que élément bi ëpp solo mi ngi fi moy que né pas-pasu sénégalais yi ak pas sénégalais yi pour combattre virus bi mais aussi lepp luy matériel rek ak lu mu laaj mettre nañ ko en place pour que vraiment pandémie bi ñu mën ko maîtriser pendant donc gàmmu bi ñu ngi ñaan rek personnel de santé et d'action sociale ñu taxaw japp ba ñoo yox yoxi ben yoon pour que pendant le gàmmu ñu taxaw taxaway bo xamantene bu gàmmu bi jexé duñu am ben torof torof si wàllu pandémie maa ngi dem nag euh, foofu ca Thiénaba ñom nak ñu ngay wajal euh, témèr ak ñeent fukkeelub édition bu ñu jagleel gàmmuk Thiénaba ñu uh, gis ne nag uh, tombe nag uh, jamono mbas ba tax na nag ki nga xam ne doomu ceneba di nekk conseiller bokk ci ko conseil territorial di abdou ning moom nag jëf jëf bu am solo jàppale nag njabootub ceneba ca la jëm nag ci ay masque ak yeneen jumtukaay yoo xam ne suñ ko jëfandikoo daal nañ bokk ci ñiy daan feebar bi di coronavirus ci réew mi rawatina ci jamono gàmmu gi moom nag nee na la mu def euh, wareef la ndax euh, moom day dafa war a bokk nag ci ñi euh, def ni ni ab Abdou Ñing daal di àddu ginnaaw mu defee jëfam ju am solo boobu ci micro Ahmadou Bambali ak Moussa Mbaye waaw suñu ñëw tey gi dañoo ñëwoon di indi suñu participation ci gàmmu 2020 gi participation bi nag ñetti kii la ñetti ñetti parti la benn parti bi ab enveloppe la bu ñuy jox xalif général bi baneen bi ci ñaareel bi ay t-shirt la ay ay ay ay ay gilet gilet yoo xamante ni dañ koy jox nit ñu sol ko di ci organisation bi pour jàppale leen waa organisation bi ñoom euh, euh, kii Diop euh, El Hadj ak ñi mu àndal di leen jàppale ci organisation bi euh, beneen bi ci des nag euh, côté santé côté moytu mbas mi ñu def ko ay gilet ay ay ay masque masque yooyu itam indi nañ ci quantité bu am solo di ko jox sëriñ bi pour ñu mën a jox nit ñi nga xamante ni pèlerin yi ñëw ñu mën leen a am ay masques yu leen jox ah euh, ba boole ci li ñuy moytu mbas mi waaw organisation bi personnes lañu am jeunes donc jël nañu gilets yo xamanteni ben bu ci dañ euh, organisation euh, ci côté gauche bi euh, aussi organisation li masque yi dem masques Nous nañ ko ñu ci li xamante ni mooy nekk fii rek 1000 lay doon waaye li nga xamante ni moom lay yóbbu ci pénc mi di ko jox yenn responsable yi ñoom itam mille lay doon total boo ko jëlee 2000 mille lay doon. Euh, Abdou Ñing ci jëfinam boobee euh, jërëjëf Ahmadou Bambali ak Moussa Mbaye ñoom nag ñoo àndoon ak ministre bi démb ginaaw bu ñu doon amal tournée euh, ci këru diine yi nekk ci Thiès daldi nag àddu ak li nga xam ne moo mooy teel wàllub solum masque bi ginaaw bu feebar bi ñëwee ci réew mi kilifa yi nag dañoo jëmmaloon ne nit ñi nag nañu def seen kéemtalaay kàttan Euh, ba daal di nag euh, faratal solub masque euh, juróom-ñaari weer nag dox ci suñu diggante ak feebar bi ba tax na nag gis nañ ne askan bi daal ñu bëri jàpp nañ ne nag xawuñu faratal la jëm nag ci solub masque yooyee loolu nag nekk loo xam ne lu doy waar la day indi rek tiitange ci askan bi waaye nag bés yi weesu nag soxna Aminata Mbaye àndoon ak soxna Ndeye Coumba Fall ngir def micro trottoir xool askan bi tax ñu ngi sàmmoon technique ni mel ñu teewlu leen. dafa bëri ay ay li tubaab di wax contradiction parce que euh, le port masque bi nit ñi defe naa respecté wuñ ko quand même nit ñi jëluñu ko au sérieux en fait et que aussi li tubaab di wax contradiction dafa am aussi ndax maanaam. ba léegi ni ñaa ngi dajaloo màggal yaa ngi am gàmmo yaa ngi am dafa mel ni daal l'état l'état dafa xaw a am li ñuy wax faiblesse daal waa ci décision yi muy jël quand même y a un manque de li ñuy li tubaab di wax manque de sérieux sax à de de la part de l'état. takkal masque yi ñetti weer na metti masque yi na trop ñi yoree asthme am problème respiration yooyu yëpp dañ ko war a sóoraale. metti na daal takkaat masque trois mois moom dina metti lool. bàyyi nañ ko ubbi nañ yoon yi rassemblement yi tëreetuñ ko xew bàyyi nañ ko mënoon nañ cee boole maski yi dëgg yàlla maski yi moom amatu ci benn sens. mbokk yi àdduna ak ci xibaar yi teel biir réew mi tubaab di ko wax actualité nationale. Euh, tey nag ci bésub euh, talaata gi euh, ñaar fa ak juróom-ñaar ci weerub octobre ci atum 2020 la ca gën a fës nag mooy la jëm nag ci wàllub Barça wala Barsak xale yooyee xam ne ay doomu réew nañu ñuy jël ay gaar di ci dugg ci tukki di dem tugal loolu nag di leen yóbbee ñuy faral di ñàkk seen bakkan ci biir géej gi

ñu dooree xibaaru biir réew mi ak li jëm si wàllu mbëkk mi Macky Sall jël na si ay ndigle yu bees li ñu gis si wàllu mbëkk mi ñu nemmeeku fan yi jaaxal na askan wi rawatina nag kii di njiitu réew mi Macky Sall démb génnee na ci benn communiqué di si xam ne ñi dañoo war a boole doole yi ngir mën a dakkal dem gi xale yi di dem Karim Xurum Xaax ma ngay wéyal xeex bi Abdou Karim Gueye Ousmane saar ak kii di na Mohamed Sall bu nitu dëgg bàyyi nañu leen gannaaw ba ñu yendoo ca commissariat bu Médina dellu nañu dellu ci seeni njaboot te toppee wuñu leen dara mutuelu gendarmerie bi benn ndaw APR moo leen sàcc Pape Bidji Sadji di ab ñàngalekat euh, dëkk ca Tëngéej bokk ca APR mi ngi si guddi gu bët si tëggut jàpp nañu ko ngir sàcc gi mu sàcc mutuelu gendarmerie bakku de di firndel xibar yi teel bitim rew bu télévision régionale di prestige euh, di ci béy am solo ba taxna nak tay ji ci talata gi wala gën fess fës wala bitim euh, dox ci euh, Soudan ak Israël ba taxna nak ki nga Abdel Fattah al Burhan mi de Moy. Euh, président du conseil souverain euh, bi nga xamné mo yor euh, nguur ga Soudan mom nag dembu mu ci télévision nationale soudanaise don ndamou rek wala di rafetlu djubo bi jox ci diganté Israël ak Soudan néna nak djubo bobé dina tax dal ba Israël Soudan dal di nak kanam ndax dañoo Japoné Euh, dafa am amoon na nag ay sanctions yoo xam ne dañ koo tegoon ci ndog tuub Soudan euh, te waa Amérique defoon ni ni mel ginnaaw bu ñu jàppee nag Soudan ne ab dëkkub terrorisme la euh, ndax ka fa nekkoon di Omar el-Béchir jibowul woon ak tubaab yooye ba tax na nag ginnaaw bu ñu juboo daal donte ne am na ca dëkk ba askan boo xam ne ànduñu ci jiboo bi waaye nag Abdel Fattah al-Buhri daal moom nee na daal Euh, jibo bi euh, lu jëmale euh, Soudan kanam la ndax dina daaneel maanaam dina daaneel ponk tënk yi xam ne nag lañu tënkoon Soudan ca la jëm nag ci wàllu koom-koom ak wàllu politique moom daal ci boppam jàpp na ne juboo boobee lu war la ñu jàpp ne nag ay euh, junni junni nit wàccoon ci mbedd yi ci bésu talaata gi yem ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weerub octobre foofee ca Dhaka euh, ci capitale Bangladesh la nag ñu wàcc ca mbedd ya daal mooy ne dañuy ñaan mboolem seen jullit yi nekk ci àdduna gi ñu daal di dumuyoo euh, produit yi xam ne produit français lañu maanaam ay lépp loo xam ne nag dañ koy jaay te waa France di ko jaay daal. Nako euh, julitu aduna nak yi la waral ni ni mel nak moy kaddu yi euh, président di Emmanuel Macron di président France Dali nako aduna djemalé euh, àddu ci Seydina Mohamed ginaaw buñ ko ba ab nit daal di fa ñàkk bakkanam Macron nag bu muy doon rendre hommage euh, professeur boobee euh, di Samuel Paty moom nag dafa àddu woon nag jëmale euh, ci Seydina Mohamed ba tax na nag jullit ya nekk ca Bangladesh ak àdduna bi yëpp loole lu loolee waa sa waa Bangladesh sax ñu ngi koy méngoole ne kii di Emmanuel Macron daal dafa sol mbubbub seytaani moo tax muy jëfee ni ni mel Euh, tax na nag ba police ba de ñoom seen wàllu bopp daal xawma xayma nañ ne lu tollook quarante mille nit euh, daal dinañ bokk ca marche boobee euh, kako ña ko organisé nag mooy parti islamiste boobu boo xam ne moom daal moo jëmmal ni ni mel foofee ca Bangladesh ñu doon dem sax ca buntu ambassade ba waaye nag policier bi policier wax leen ne alamuk du fi dalee waaye nak gis nañ ne dal daal di photo Emmanuel Macron nekolo lo xamné nak nag dañoo doon woné sen nakar la xamné président France wax nako Uh, ci uh, yonent yalla mohammed uh, mbokk yi jeexale nak xibaar yi bitim rew yi fofé ca turki ca syrie ñu gis ne nak ay bombardement amal nañ ko nak fofé ca idlib ca syrie ba tax na nak lu tolo ko juroom ñetti fukki nit dal dal nañu ñak seen bakkan ñu ngi leen bombarder nak ca seen camp am na ñi xam ne nag àdduna ñu wax ne daal euh, bombardement yooyu ña ko def nag du kenn lu dul euh, waa Russie euh, ñu gis ne nag xeexoo daal mu ngay wéy ci di am foofu ca Syrie ñi nga xam ne nag mooy OHDH ñi xam ne dañuy saytu la jëm nag organisation syrienne des droits de l'homme ñi xam ne nag dañuy saytu yelleefu doomu aadama jàpp nañ ne daal lu tollook juróom-ñett fukki nit ak ñett daal lañ nag ñàkk seen bakkan lu tolloo ko juróom-ñeent fukki nit nag am ay gaañu gaañu yu metti ñoom de xamle nañu ne sax euh, mënees nañ jàpp ne sax wala njortu nañ ne nag ñiy euh, wéy di ñàkk seen bakkan dina bari ndax nag gaañu gaañu gaañu gaañu ñooñee métti na lool ñu ngi leen bombarde nag ci biig foofe euh, ca Idlib ca Syrie te aviation russe moom moo ko def. bakku boobee di jëmmal la yitteel wàllub tàggat yaram bés bu yàlla sàkk nag seen télévision régionale di ci béy wàllu am solo ba tax na nag li ci gën a fës ci bésub talaata gi ñu ànd ci Alaaji Fàllu Ndaw dañu koy ubbee ak euh, mbirum euh, lamb comité national de gestion bu béré bi nga xamné ki di Alioune Sar jiite won bureau bi ñoom nag seen mandat dina jeex rek ci 31 octobre bi ñu dëmmal ñoom nag euh, nga xam ne ñu ngi nekkoon ci bopp CNG boobu euh, depuis lu tollook ñaar fukk at ak juróom-benn bi yoon day kenn du leen yeesalaat ba tax na kii di ministre Matar Ba mu ngi ciy dalal ñoo xam ne yëngu nañu bu baax ci mbirum làmm ku mel ni Mohamed Ndao Tyson tey jiite woon fii génération bul faale kii di euh, Matar Ba nag dalal na ko ci waxtaan boo xam ne mu ngi ko seqoon moom ak euh, président amateur de lutte yi muy du Diagne Diécko wante tamit ak kii di Pape Ngagne euh, Diagne wante Pape Fall tamit Pape Dieng tamit fekke woon na waxtaan boobu li nga xam ne nag moom la ministre Ba di dëgmal rek mooy dem a xool kan lañu wara mëna tek ci bop euh, CNG bobu may fàttali rek euh, CNG bi nak kenn du ko ndax euh, du poste bo xamné dañuy déposer candidature dem ci ay élection dañ koy tann té ki koy tann moy ministre des sports mom moy tann kenn tek ko ci CNG bobu ñuy fàttali tamit né ki di Mohamed Ndaw Tyson mom copte won nañ ko rek duggal ko ci comité de gestion bobu mu àndoon càkk mbeur mu ni moo Yahya Diop Yékini ci fan yi tamit Matar Ba dina dalal kii nga xam ne moom moo nekkoon na ñaareelu tigre de fas muy Moustapha Guèye di seq ak moom waxtaan pour xool rek kan lañuy tànn teg ko ci bopp CNG bi. ñu wax ci mbirum football Ligue des champions européens dinañu def seen ñaareelu ayu bés tey jii lañ koy door kii nga xam ne moom moo nekk ci groupe A bi nekk ci bopp muy Bayern de Munich te mu génnoon ci benn victoire moom mooy dalal ñaareel ki nekk ci classement bi di Lokomotiv bu Moscou Atlético Madrid te nga xam ne dañ ko duma woon ci ayu bés bi weesu dina dalal Salzbourg ci groupe B bi Star nga xam ne moom moo nekk ci place bu jiitu bi dina dalal Inter de Milan nekk ci ñetteelu place bi Mönchengladbach nekk ci ñaareelu place bi di dalal Real Madrid mi nga xam ne dañ ko duma woon ci ayu bés bi weesu ci groupe C bi olympique de marseille nekk ci ñetteelu place bi euh, te nga xam ne ci ab jël la jóge dina dalal manchester city mi nekk ci place bu njëkk bi Porto nekk ci place bu mujj mujj bi euh, dina euh, dalal Olympiakos bu Ousseynou Ba ak Pape Abdou Cissé nekk ci ñaareelu place bi te ñoom ñoo daanoon Olympique de Marseille ci joŋante bu mujj bile ci groupe D bi nag Atlas Shakhtar nekk ci place bu njëkk bi dina dalal Ajax d'Amsterdam Liverpool bu Sadio maane nekk ci ñaareelu place bi te daanoon Ajax d'Amsterdam euh, moom dina dalal Midtjylland euh, ci euh, match yooyu ma leen wax yépp nag dinañ ko door juróom benn waxtu ci ngoon ñu jeexalee ko ak CNEPS muy centre d'éducation populaire et sportive bi nekk ci Thiès ñoom nag ren jii day ubbi nañu concours boo xam ne ñu ngi ko jagleel instructeur des sports yi nga xam ne nag ñoo ko mën a def rek mooy ñi nga xam ne seen xalaat ak seen liggéey màcc na jëm ci mbirum athlétisme gymnastique judo ak karaté euh, concours ba nag dina am rek. Euh, neuf ba jàpp fukk fan ak ñaar ci weeru décembre bi ñu euh, dëgmal ñi ko war a def nag mooy ñi nga xam ne euh, ci concours direct bi am nañu baccalauréat te seeni at motul fanweeru at ak ñett ñi nga xam ne tamit ay professionnel sport lañu te amuñu lu tollook juróom fukk at ak juróom mun nañoo def concours boobu. Fallou Ndaw jërëjëf ci xibaaru tàggat yaram daal di jeexee ni ni mel ak lay teel. Euh, xibaar yi euh, yéen ëttub yéenekaay yi xam ne bés bu yàlla sàkk day génn ci mim réew di Sénégal te nag soxna Mbaane Mbuup da ci béy wàllu am solo mu koy yaral askan bi rek ngir xam ana lan moo ca gën fës ñu ànd ak moom ci revue de presse bi. dal leen jàmm ci prestige tv ci seen revue de presse bu talaata ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru octobre réewum france nekk ci coow lu rëy la ko waral nag di ab caricature ba ñu defoon ci mouhammad salallahu alayhi wa sallam mboolem jullit yépp ngay ŋàññ njiitu réew mi di emmanuel macron ba tey ci wàllu woowee tribune quotidien di ca wax ne ñàkk xam la mu waral bari na moo waral discours emmanuel macron ba ak la mu ca wax yëngu-yëngu yi nekk ci sous région bi mbootaay yi ëmb l'islam ña ngay artu réew yu mel ni Côte d'Ivoire Guinée ak Nigéria ca tribune yéene kaay Barça wala Barsak tas na réew mi tribune di xamle ni beneen gaal këpp na gannaaw ba mu dajekk waa marine sénégalaise di ab bato ba nekkoon ca géej ga ba tey l'observateur di kat ci émigration clandestine di wax ci xëtam bu njëkk accident ba am ca géej ga yéenekaay boobee di amal ab enquête ci li ñeel xaalis ba Union européenne joxoon nguurug Sénégal ngir mu téye réew ma ay laaj daal dina ca samp ca mbir ma Sandaga toj ak defaraat ya ca am ñuy laaj ana lan moo lalu ca biir ki koy xamle di l'observateur yéenekaay ba tey yéenekaay ba di wax ci gàmmu bu atum 2020 fële ca Medinatu Salaam cantaakun ya ña nga ca guddi gu bët setagul ndax jaaxle ak jaxasoo ya am ci seen biir leeral ya nekk ca Soleil yéenekaay ba tey soleil di wax ñaari doxalin yi am ci diggante Tiwaawan ak Touba waaye ku ne xam na ni benn jëmmukaay la takk der yi ci liggéey bu doy waar ñu nemmeeku ni jàpp nañu lu toll ci junni ak ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn kilo ci drogue fële ca Kidira njàkkum ndox mi amati ca ndakaaru critique yéenekaay di wax ci xëtam bu njëkk ndakaaroo nga yuuxu di jooy ndax mar gu tar ga fa am tribune ca xëtam di wax ba tey ci wax yi am ci diggante Aminata Mbengue Ndiaye ak Serigne mbay Thiam yéenekaay bay wax ni amatuñu ngëm-ngëm ngir mën a jotaat réew mi ba tey li askan wi ci l'observateur di wax ne ab ñaareel bu ragal awo ba ma ngay setal deram tey nettali lu doy waar critique yéenekaay indil ñu tiitaange ma ngay xamle ni yeneen i feebar door nañu ci réew mi ginnaaw coronavirus li ñeel tàggat yaram ak stade yéenekaay di yëgle ca classement mondial ba Sénégal la ñu tabb ca fukkeelu place ba ci Afrique ci wàllu rugby bi OM ma ngay dëkk City xumbu xumbu la ñuy xaar ci diggante reyal ak Atalanta yéenekaay ba ne Bayern dafa xiif Sadio Mané ak Liverpool nar naa neex ci bésu tey jàkkaarloo Messi ak Ronaldo stade yéenekaay ne lu war a mën a nekk la mbokk yi li la ñu leen indiloon ci xëtu yéenekaay yi di leen jox di daje ëllëg ci yeneen xibaar. jërëjëf soxna Mbane ci revue de presse bu am solo boobee mbokk yi foofee sax la xibaar yi buuree ci seen télévision régionale di Prestige

www.prestigethies.com ak page youtube bu prestige yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm it di leen sant bu baax a baax di delluwaat di wax askan bi ne man ngeen télécharger application prestige tv ginnaaw bu ngeen demee google play su ko defee ngeen mën a am xibaar yi ci anam nu ñu mën a gaawee ci bitim réew ci mii réew mi di sénégal ak ci ci Thiès ngeen am ko ci seen téléphone portable ak seen ordinateur mbokk yi ëllëg yeneen xibaar yi teel bi réew mi di sénégal ak bitim réew mbokk yi jërë ngeen jëf ba ëllëg incha allah